ginnaaw loolu mbokk jullit yi noo ngi ànd ak yéen ci dars fajar yi nu tolloon ci lan lañuy ñuy jëlee ci tabaski mbokk jullit yi tabaski ay dars yu bare bari lañ ci war a jëlee waxoon nañ at tadhiya mooy sakrifis bu doomu aadama waroon def war jàng ci tabaski waaye sunu darsu tey mooy alxubbu fillaa bëgg ci yàlla bëgg yàlla xam ngeen ne darsu tabaski lépp bëgg yàlla la Baay Ibrahim alayhi salaam yàlla gënal ko soxnaam yàlla gënal ko doomam yàlla gënal ko lépp ba tax mu tër doom ji ne da koy rendi ngir yàlla allahu akbar mbokki jullit yi ndax ngëneel ndax mbëggeel gën naa rëy mbëggeel gii bëgg bay rey sa doom bëgg ba bàyyi lépp topp ki nga bëgg yàlla danoon natt ibrahim wa isibtala ibrahima rabbahu bi kalimaatin fa atammahunna borom bi nee na keroog ba ma xoolee ibrahima ba indi samay nattu ci kawam ah laa ko fekk mu ne keng nekk góor léeg nga dégg ñu ne góor nangam ak nangam waaye yàlla de lim wax mooy inna ibrahima kaana umma ibrahima rek benn nation la ci ngëm yàlla tabaraka wa taala benn nation la ci wane cofeel gu mu bëgg yàlla tabaraka wa taala yàlla gënal ko lépp loolo tax bëgg ci yàlla tabaraka wa taala ala anwaaul hubbi moo gën a rëy ci doomu aadama li muy bëgg fa mata ahabba al abdu rabbahu taraka di la saa yi doomu aadama bi jóge wane ne moom yàlla kese kese kese kese la bëgg day bàyyi loo xamante ne ngërëmal yàlla nekku ci allahu akbar saa yi doomu aadama ne man dama bëgg yàlla xam ngeen loolu mbokk jullit yi fan lañ koy xamee dañuy xool ndax yow la nga nekk ndax ngërëmal yàllaa ngi ci wala ngërëmal yàlla amu ci ndax in innal muhibba liman yuhibbuhu muti ku topp topp ka nga bëgg gis ngeen ndaw si ba mu nekk xale bu góor bi yow laa bëgg laa ilaha illallah xoolatul dara mu ne ko fi ma dëkk amul courant mu ne ko amul problème fi ma dëkk amul tali mu ne ko amul problème fi ma dëkk dañuy taxani mu ne ko amul problème fi ma dëkk amul yàpp mu ne amul problème awma lal mu ne amul problème sama kër tabaxuma ko mu ne amul problème liggéeyu goo mu ne amul problème allahu akbar lu ko waral ndax dafa bëgg laa ilaha illallah waa mbokk julli yi kon ku bëgg yàlla nag ki wax ne man dama bëgg yàlla dañ koy xool ndax la muy yëngatu ngërëmal yàllaa ngi ci walla ngërëmal yàlla nekku ci ku bëgg yàlla saara ala bi day dox jëm ca yooni gaaya jaaroon ca yoonu yàlla yoon wi nga xam ne yàllaa ko rëddal boppam ne ñi ma bëgg sama gaay yi seen yoon waa ngi nii yoon wi lañuy jaar waaye mbokk yi ku bëgg yàlla wabtaada anil maasi yi day sori mooy yàlla te da ngaa bëgg yàlla ba pare nekk biir soirée yi di pëccëxoo ko tëb damaa bëgg yàlla nekk ci làmb ji damaa bëgg yàlla nekk ca loolu mënta nekk mënta nekk ndax gaa yi yàlla yi kenn du leen fekk foofu kon yow mi wootewu ne da ngaa bëgg yàlla xoolaatal sa bopp fa man ahabba allaha bi xaq ata amrahu képp ku bëgg yàlla ci dëgg topp mbir yàlla topp ndigalam wa tabaa shar'ahu mu topp sharia yàlla ku bëgg yàlla day topp sharia wa min huna fa inna muxaalafata wal isyaan dalilu kadbil mahabba aw nuqsaaniha mbokk yi ci lii ci mbir mii ci lañuy xamee dëgg-dëgg ne waa ji bëgg na walla bëggul ndax suñu gisee mbëggeel gi muy woote ne moom bëgg na yàlla wuutewul ak bàkkaar yi muy def dañuy xam ne kiikat kat day kàcc waxul dëgg walla mbëggeelam ci yàlla matut mbëggeel ga manqué na léeg-léeg nga gis boroom kër gu ne soxnaam yow da ngay sóob rek bëggoo ma dara sama alal nga bëgg léeg nga gis ndaw su ne yow da ngay nangam bëggoo ma ndekee su ma bëggoon lii nga may def doo ma ko def ah, gis nga rek su fekkente ne ñun ñoo am manque manque sunu diggante ci sunu cofeel sunuy mbëggeel masama ak yàlla nga gis ku ne dama bëgg yàlla gàddu cigarette ku ne dama bëggal yàlla njañ bopp bi ku ne dama bëgg yàlla nangam ku ne dama loolu dalilu kadhibil mahabba ay fen la du dëgg wala mbëggeel gu mànki walisa mbokk jullit yi fa tariqul xubbi yoonu bëgg yàlla taala yatamassalu fi tarkil maasi dafay wane ne dafay ëmb day jublu day jàngale ne waa ji nee dafa bëgg yàlla kon du mooy yàlla ma alxirs ala adaa il farida dafay ànd xër bëgg a joxe farata yi fa muy dégg nodd ak fa muy jàppe ak fa muy jullee benn la maanaam fa muy defee farata yi laa ilaha illallah benn farata du ko raw lu tax parce que dafa bëgg yàlla fa muy bëree naafile yi dafa bari bëri bëri bëri bëri ba soo séenee waa ji nga xam ne kii ab jullikat la jullit yoon wi moom la bàyyi Ibrahima jàngale wane dafa bëgg yàlla tabaski loolu lañ ciy jàng dañ ciy jàgg bëgg yàlla képp koo xam ne man araada an yaarifa maa lahu inda falyanzur maa lahu ku bëgg a xam moom mbëggeelam ci yàlla naka la toll ndax xool moom naka la bëgg yàlla mbokk yi nattukaay bi soriwul danga bëgg xam yow ndax yàlla bëgg na la walla yàlla bëggula xoolal yow foo toll yàlla xoolal foo toll yàlla rek soo nattee sa mbëggeel ci yàlla dinga xam yow fan la la yàlla tool fal yanzur maa lahu na xool maa lillaahi na xool moom li mu ameel yàlla yanzilul abdu minhu haysu anzalahu l min nafsihi moom yàlla day wàcc jaam bi kem jaam bi fi ko teg allahu akbar yàlla boo doxee jëm ci moom mu waaxu jëm ci yow soo waaxoo jëm ci moom moom yàlla mu siq ay jéego yu dëgër jëm ci yow soo dawee jëm ci moom moom yàlla mu daw jëm ci yow kon xoolal foo toll yàlla wa man awfa bi haada al xub naa la mahabbata allah ku matal lii am mëggeelu yàlla yàlla ha min karaama wallahi mbokk yi karaama ak teddangeeg martaba rawul nga am mbëggeelu yàlla yàlla xool jaam bi ne kii ko bëgg xool jaam bi ne ko bëgg laa ilaha illa allah mbokk yi yàlla na nu yàlla bëgg mbokk yi maa ngi leen di ñaanal di ko génn ci sama biir xol di ñaan yàlla jalla jalaaluhu azza kamaaluhu yàlla na leen yàlla bëgg mbokk yi yàlla na leen yàlla bëgg yàlla na leen yàlla bëgg asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.